dale nag jàmm ci li yéen kaay yi xëyee tey Walf Quotidien xëy tey ak nguur gu jeex mooy xeeñ ci Sénégal docteur Abdou Khadre Sanokho addu ci biir yéen bi ne Macky Sall nar naa jànkonteel ak kuje bi gën tar bu Sénégal mës a xam li yokk xar mi karaw mooy gedd yu bari yu ñu nemmeeku ci biir APR jamono yi ak démission yu bare yu tàmbalee di taw ci biir parti bi féeteek nguur gi enquête dikk moom itam rëdd ne Macky Sall ci guddi gu bësategul la ne ndax tànn jiit bu mu war a tànn muy womat Benno Bokk Yaakaar ñu ànd ak moom di ay alliéem ñu séq coalition bi ne si jiixa jaaxa ndax Moustapha Niass dina mën a génnee Macky Sall ci guute bu mu ne jamono yi mooy laaj bi ñuy samp direct news wëy si mbirum Macky Sall rëdd ne mandarga yi wane jamono yi ne politique bopp sa bopp la bari na lool bokk na ci article 87 bi ñu bëggoon coppi jébbal ko assemblée nationale te député bañ ko wootee ak yeneen i mandarga te sax fi mu toll nii dafa mel ni kaddu Macky Sall boo moytut dootul jar dara ci biir nguur gi la tribune di ko dëggal rëdd moom itam ne ñafare ak nguur gi ku ne takk nga say bagage pare ngir dem sa yoon ndax APR ci tas la jëm bukki baloon mattoon ci local yi ak législatif ya moo leen topp ba néega nii juróom benn weer rek des suñu diggante ak élection ya Macky Sall nekk si jiixi jaaxa xamagut kan la fiy teg laas di ko dëggal rëdd moom itam ni Macky Sall wét na lool ci mbir mi te moom dong moo am lenga yi fi mu toll nii ngir tànn kanara womat Benno Bokk Yaakaar bés bi la jour moom ma dikk ak ñaar ñu war a dekki ci wàllu politique muy Karim Wade ak a dabe itam jëmale bu leen assemblée nationale bi dekkilee ba noppi Vox Populi xëy ñu tey ak mbirum Biram Souleye Diop ak El Malick Ndiaye ñaari kàngaamu waa Pastef yi nga xam ni caabi da leen féete woon gannaaw te ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër muy lu mën a dalal réew mi ci wàllu politique yor yor xëy ñu tey ak ay ñaxtuk Guy mari Sagna moom député bi di siiwal di ñaaw lu itam ñaar fukk ak juróom benn milliards yi nga xam ni dañoo génn ci gafaka assemblée nationale ba te kenn xamut fa koppar yooyu jëm muy àdduna dana ko topp ba mu mbay mi ñu nar a soppi taxawal beneen bànqaas buy saytu yorinu kopparu réew mi ñu duppee ko parquet financier teg si itam ne daanu soppi itam daan ñu war a teg ñi nga xam ni dañuy njuuj njaaj alalu réew mi Sud Quotidien di ko feelu rëdd moom itam ne sa assemblée nationale ba moom député yi tey dinañu sëgg ci li ni la mbirum CREI bi ñu nar a soppi ak parrainage la ñuy waxtaanee ngir xam ana lan dogal lañu jël si wàll wi tey ci alxames gi naka noonu sax l'observateur moom rëdd siwal ay njuuj yi fi amoon ci junniy ci suñuy koppar ay rapport yu Cour des comptes génne woon na ñit ñu bare bare laaj ak tontu dox seen diggante ak enquêteurs ya lu toll ci ñeenti téeméeri kilogramme la rapport ya di pesé enquête ya ñeel yoon wi koppar yi doon jaar ak yi ni mel la ñu mën ko yër ci biir yéen kaay bu Médina bi libération xëy ñu tey ak mbëkk mi gone yi nga xam ni mucc nañu ci gaal yi di nettali lu métti métti li ñu dund ak itam ni leen naar yi doon def ci ay ñaawteef seen der bu ñuul bokk ci li leen tooñ stade le dikk ak ñun si gaynde yi nekk ci yoonu jënd Malick muy mercato bi bokk na ci Ismaïla Sarr abdu Diallo ak Alfred Gomis ne si seen digg ndënd record dikk ak ñun ak saajo Mané mi nga xam ni ci tàggoo la jëm digganteem ak Bayern de Munich suñu làmb mi ñuy jeexalee xëy ñu tey ak combat yi war a taxaw altine bi ñu jëm nag war nañoo xam dëgg-dëgg ana kan moo war a sëgg bëre ak kii di Ama Baldé ndax Gris Bordeaux lay doon wala moo Modou loo